ci benn buum jébbal ko Seexu Tijaan radiyallaahu anhu barki démb rek jot naa xibaar bu nga xam ne bi yéen xam na ne tukkuloori Kaolack yi yëpp yëpp la dalee ca penk ba xarfu ndeyjoor ba càmmooñ masuñu xoona mën a bokk benn jataay ñii waa fële la ñële waa fële la ñële waa fële la mu baxee koona Dakar ñëw fii pour dajale tukkulóor yi benn la leen mënu ci dara mu geesoo ci mbooloo mi gis Thierno mu ne Thierno mboolo maa ngoog bésab keroog la tukkulóor yëpp joxante loxo ca sirru làmmiñam wa bëgg seexu tijaanam nga xam seexu tijaanam nga kenn ku nekk mu wan la ne sa xalifa sa royuwaay sa soppe loxoom bi loxool seexu tiijaan la làmmiñam làmmiñu seexu tiijaan la kum waxat seexu tiijaan wax yow kum joxan lo jox lo jox loxo seexu tiijaan nga jox loxo kum jox loxo seexu tiijaan la jox loxo ba ñëpp kenn ko ne nii ba mbooloo mi daj moo jur kat guddi seexu tiijaan gi tey keroog jataay booba ca la leen Cerno waxe ne leen Seexu tiijaan am na guddi goo xam ne gi yéen waxoon na ne Tijaani suñ xamoon li ci nekk danañ ko jàpp muy feet ci at bu nekk ñu ne ko goo guddi foofu kañ la mu ne leen bés sàngam ci weer sàngam bii ñëw te booba soriwut keroog la benn benn kenn ku ne man joxe naa nangam man joxe naa nangam man joxe naa nangam ñooñu leen ma ne mën nañ leen wax ne leen yéen gisuleen ci Seexu Tijaan la mooy takk ndeeram ñun ñii xam nañ sañ-sañ bu tax xam nañ ko. te kere ba leen Thierno xoomatee ci Cheikhou Tidiane keroog lañ commencé joxe seen doole keleen kuma lañ commencé joxe seen alal keleen lañ commencé joxe seen pexe ak seen xalaat kon nag ma bëgg ñun ñëpp ñu raxas xol yi raxas xel yi xam ne taw a barkee ngi pare taw si te ci xol yi la soxla na waxoon ne bés nee na maa ngi fees dell ak mbootam Cheikhou Tidiane bés dana jot danaa taw ku fekk nga nekk. ku ma fekkut nga nekk montagne danga nga dell ak Cheikhou Tidiane. kon jotaay bi jotaay Cheikhou Tidiane la. Cheikhou Tidiane fi ñëw nar wax eh, wax boppam Cheikhou Tidiane moo fi nar a ñëw xoote nañ jiital xëy yu njëkk a xoote. la aaj ma Abdou waxoon bàyyi nañ ko wax Thierno buñ gis sax ne moo ñu xoo ñu xëyu nañ gis ne moo xoote moo xëyu kon nag Seydou Taha. li jotee eh, kalimatu iftitaahi rek la woon wala kalimatu tamhid rek la woon ñeexal la macha allah sa kalima kon nag Pape sëriñ bi nee jox na la kàddu. waaw xeeran jërëjëf sëriñ bi ñu wax ne alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala almaayil almuriid li sujud li qalbihi almunib سيدنا محمد نور ma والجبروت وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñu ngi sant yàlla ñu defee kenn ci mbooloo mi mbooloo la moo xam ne la chaque ci mbooloo mi mën a wax ne ay muflixin la ci lañ bokk lu amul ci benn sikk ñu ngi wax nag ci ndigalal sëriñ bi di Cheikh Taha Alhassan Deme li nga xam ne dafay ñëw tey ci ndigal jëlee ko ci xalifa kër gi muy Cheikh Mouhamadul Kabir ak ay rakam mu mel ni kon Thierno Hassan Deme ci boppam moo génnee këram <coughs> ñëw ci zawiyaam Thierno Hassan Deme moo génnee këram ñëw ci zawiyaam fii ci kër Baye Soxna Zawiya Thierno Assane Deme mu kër Baye Ousmane Dieng kër Baye Ousmane Deme kër Baye Ousmane Dieng Zawiya mooy Zawiyam Zawiyam ba mooy këram kon kër Thierno mooy kër Baye Ousmane Dieng Zawiya mooy Zawiya Baye Ousmane kon ñooñ Zawiya Baye Ousmane ñooy ñooñ Zawiya bi nga xam ne damay wax ne Baye Ousmane man bi ma koy xam nekkuma ci réew mi boobu maa ngi nekk Italie sëñ Dramé mii laa woo téléphone benn bés ne ma ah de am na lu fi xew su la fekkoon xam naa danga nga bëgg lool ma ko lan la mu nettali ma taxawaay Arafa boobu Baye Ousmane a ngi toog mu jox ma ko téléphone ma xam ne kii ma jot doom ca bu rëy la ci pay lu tax mooy la dawal sax la taxaw la dawal taxawaayu Arafa ci moom xaatir boobu ba ne ma ngi koy taxawee loolu ku amul cër mënoo am yëg-yëg boobu ndax ñun kat taxawaayu Arafa dafa dafa am si ñun dafa am si ñun dafa dafa dafa dafa firi lu rëy ci ñun maanaam li ñuy wax ni lu symbolique la li tax moo wax ko dibi na sembaanam ci guddi gii nga xam ne moo waral wax ji muy lële kat xam nga Thierno ngi nettali ne. xew-xew ba ci abafa la amee woon booy liir xasida bàyyi am na benn bés bàyyi taxaw abafa wax benn wax bu kéemaane ne waqaftu yowma sulasaay bi abafa waqaftu eh, eh, waqaftu yowma sulasaay bi abafa jikko eh, rabbi rabbi abdu abdu xaq ko ma abafa xam nga mu ne taxaw na yowma sulasaay abafa loolu waxi ku xam yàlla la te dëggal yàlla bés abafa boobu nag ci lañ joxe woon Cheikhu Tidiane mayam yi nga xam ne képp ku ci bokkut boo ko déggee sax doo ko mën a gëm ngir ni mu doyee wax loolu dama ko cité rek bu boone ne jëmm ji toog ba mu cër bu law la ci Cheikhu Tidiane ba cër bu law la ci mbiri baay yi jaaree ko ci buntu Thierno Sane ah lii nii nag nga xam ne moo waral tey déplacement bii bañ koy waxtaanee ca bañ génn ca gàmm gu mag dañoo waxoon ne ah Thierno Assane lii di guddi Katmiya gi li dalee fii Kaolack ba ngay dem fas ba ba ngay am ay numaat mënuñoo fàttali koo xam ne moo ko moo ko sos nii di ko def ba mu yegg fii mu yàgg kuddul moom loolu nag li mu tegtale mooy cër ba nga xam ne moom am na ko ci yëf yi Thierno Assane Dème ci ñu ko xam xam nañ ne mooy tarjumaanu Baye Niass radiyallahu Thierno Assane Dème ci ñu ko xam mooy tarjumaanu Baye Niass naka nga xam ne noonu la Seydi Ali Habasim nekkoon tarjumaanu Cheikhou Tidiane te Seydi Ali Habasim moom kat moom rek kat ci gaañ yi moo fekkee woon ba nga xam ne yàlla yonentu yàlla ngay tabal Cheikhou ma maqaama boobu mu tabaloon ko muy kat miitu loolu nag ah, ñu ci wax rek mooy ne euh, sëñ bii kat am na cër ci yëf yi waaw tey du tax ma xam ne am na cër ci yëf yi gannaaw li ma wax léegi mooy ne keroog ci gàmm ga bañ ci génnee ba ne dañuy waajal kët miya dañoo wax ne ceeb na sëñ dem mii nga xam na mooy borom kët miyatu am na juróom-ñaari xaraf yoo xam ne ñoo composé turam wi santam wi alxasan dem ñu ne xaraf wu ne nag danañ ko def mu am manto ñu jaayante ko jëm ci guddi gi nga xam ne mooy guddi jaayante booba sëñ Ousmane mi nekku fa de ñu ne waaw bisimilah ñu ne suñ ko defee ci diwaanu kawlax def ko ci diwaanu Ndakaaru dafay nekk fukk ak ñeent dégg nga ñu ne juróom-ñaar yu nekk seen gannaaw boo ko boo ko limee ñoom ak ñu nekk seen gannaaw ñëpp dana nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy limab Jaysun te xam nañ ne mooy xisbu nas mooy xisbu badr nga xam ne wax dëgg fi yàlla badar mooy jaayante dëgg-dëgg hmm? gis nga boobu ba léegi mën naa laa wax ne defuñ ci jéego bu am solo ba nga xamee ne nag keroog dajee nañ ci saalu cerno bi ñu waxtaan ne léegi liy jot jot na nañ jóg ñu tàmbali liggéey bi ñu ne ajjuma ju jot danañ def benn xadara am kuñ seeti hmm. yàlla dogal tey nii fii lañ njëkk a ñëw fi lañ njëkk a ñëw njëkk a ñëw gi fii lim mu firi mooy ne manto bi njëkk a jóg bi njëkk a tëb Baye Ousmane Dieng xaw na ko manto manto général bi njëkk a tëb Baye Ousmane Dieng xaw na ko xam nga manto boobu nu mu tëddee am dañoo wax ne borom manto bu ne ñeenti té eh, ñeent fukki nit ak ñett danañ soofu ci gannaawam ñeent ñetti eh, fukk ak ñett ci ay leet naa dañ taxaw ci gannaawam moom mu ñëw nekk brique bi nga xam ne mooy complété mu nekk dem 44 yaa ngi may dégg dem 44 dem nag soo ko xaba soo ko soo ko maasoon ci yeneen i masque maanaam ba mu nekk damm dafay mel ni deret waaye bii jaayante nag du jaayante deret waaye jaayante bu ëpp deret da muy jaayante rabbaaniya <coughs> yaa ngi dégg ñeent fukk ak ñett yooyu moom mooy brique bi nga xam ne mooy brique or bi bi ko complété muy ñeent fukk ak ñeent ñeent fukk ak ñeent yooyu li ñu waxoon ci ku nekk ci jaayanteem lan la mooy ku nekk danay joxe ñaari junne dégg nga su fekkee ne juróom-benni juróom-benni euh, euh, euh, manto ya ah am na ñeneen général yu ko jël ba mel ni yu mel ni Baye Ousmane yu ko jël wala yoo xam ne ñu ngay rëj la loog Baye Ousmane ñu ko jël bu ko defee lim ba dafay nekk adadu 308 lay doon ñetti téeméer ak juróom-ñett mooy adadu razaaku mooy tur yàlla bi ñuy wax razaaku dégg nga bu bu bu juróom-ñaar yëpp matee la koy manqué 313 dafay def dafay des juróom yaa ngi dégg yooyu nag soo ci yokkee juróom eh, juróom mooy 14 14 nag mooy tur yàlla bu waxaabu moom yàlla dëri dëxiñ ci secret euh, tur yoon ci yàlla Muhammad boobu ñuy wax taaxaa bi nga xam ne moom moo jiite tey délégation bi ñu ñëw seeti Baye Ousmane Dieng ak Hadj mel ni kon su ma waxee ne Baye Ousmane mii bam cër la wallahi lazi la ilaha illa wal hayyul qayyum loolu dañ ci am shahada boo xam ne wa ma shahidna illa bi ma alim na léegi nag damay waxoon na léegi ci biir boo xam ne ñu ngi ndokkeel Baye Ousmane dëgg la nañ ko ndokkeel xam nga tey nga gis gis boo ko ak dégg ku mas dégg bàyyi mbiru bàyyi Ousmane ak foo mënti doon ak noo ko mën a déggee su yàlla defoon tey nga ne juuf ci jotaay bii yow de xaw ma lan waaye yow sa bëti xol jàkkaarloo nag dëgg joo xam ne wax dëgg fa yàlla yow sa jëmmi bopp su fekkee amoo benn feebar ci sa xol da nga ko ndokkeel alhamdulilah kon ñu ngi lay ndokkeel ñu leen ndokkeel ci jamaa bi niñ toogee nga boo déggee seen silence bi nga xam ne moo rëññee si seen biir rek ngeen xam ne joxe nañ seen bëti xol joxe nañ seen noppi xol. tey tamit su fekkee ne bi ñuy lal jotaay bi fekk na la fa ba léegi nga dégg nu ñu doon tuddee yàlla ak bi ñu ko doon yëgee da ngay xam ne ñii nii wax dëgg fa yàlla kenn du werante ndax si mbooloom Thierno Assane Deme lañ bokk wala bokku ci. kon ñii kay kanaa dañoo raw ci mbooloom Thierno Assane Deme waaye kenn rawu leen ci mbooloom Thierno Assane Deme loolu nag kon ñu ngi la ci ndokkeel bu baax wax nag ne. Euh, sëñ bi léegi muy julli timis dafa jàng saabu suuratu duha muy saabu kéemaane xam ne yàlla cee gëñ wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yu kéemaane ndax wax na ko ne ko e, yow incha allah al akibatu xayrun laka min al ko yow la nga xam ne moo mujj toujours mooy gën a neex mooy gën mooy gën a mat la nga xam ne moo njëkk ci say mbir man yàlla mën naa la defal loolu wala saw fa yox jékk rabbuka fa tarda te naa la jox ba nga gëm su ma la waxee yow yow yow Mouhamad yow war ngaa gëm kon ceeb naa seen dem yow Baye Ousmane su la waxee lii war ngaa gëm kon yéen ñii Baye su leen waxee lii war ngeen a gëm lu tax mu ne yow Mouhamad alam yajidka yatiiman fa awa yow dama laa fekk ngay ngay ngay ngay lan fan laa mu ak yow boo wajadaka daalan fa hada dama laa fekk nga réer xamoo dara yow foo mujj yow mënoo bind mënoo liir yow foo mujj mablagul ilmi fiik dégg nga dégg nga mu ne ko wajadaka aayilan fa aghnaa amoo dara ku la nampal sax problème la woon waa léegi nag mboolem kunuus yi mboolem wër si xéewal yi alal ak lu mënti doon ci yow la dayee ah kon nag dénk naa la yatiim dénk naa la jëfam dégg nga dénk naa la ku ñàkk kuy laaj te wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon Baye Ousmane li yàlla def ci yow moom lañ la sant nga li Thierno def ci yow def ci Baye Dramé mu def ko ci yow yow moom lañ la sant nga def ko ci mbooloo bi mu ne kon yàlla mu ne dénk Baye mu ne dénk la mbooloo buñ des gannaaw ci lii dégg nga dégg nga bu ko defee mu ne nag wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon mu ne naka la ñuy sante yàlla mooy li ca Cheikh Tidiane wax ne bu Tidiane xamul ne ci guddi gi dañ ko def fet feet googu nag nga xam ne ñun yàlla jox nañu ko ci guddi katmiya gi amul kenn ku ko mas a bañ ci yónnentu aw la wala yu ñëpp a ko ñaanoon yàlla yónnentu yàlla yi saa sax ñaan na ko yàlla anzil alayna maidatan min as-samaa'i takun lana iidan li awlina wa aaxirina wa ayatan minka warzuqna moo tax guddi gi bu ñëwaan Cerno boo gisee jamaal bi nekk ci moom bu bàyyi ne bu bàyyi ne eh, aniyaan li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun badali nazirina jamaaluhu xoolal safar mooy jeex rek weer woowa teru safar mooy jeex weeru teru wala ba bàyyi weeru weeru weeru waa teru muy weeru yonent bi teru ñëw weeru Cheikh Tidiane waa ngi ñëw te mooy feeñal weeru yonent bi sallallahu alayhi moo tax xoolal Cerno ni muy nekkee tarjumaanu Baay rek foofu moom xoolal fukki fan ak juróom-ñaar ca safar rek Cerno soppeeku na wala safar teru na rek Cerno soppeeku na boo ko xoolee ma ngay melxat ngir jawaahir bi guddi yaa ngi dégg mu jaayante si daf daan jaayante ba jeex tak tak waaw def ci guddi gi lu mu mën ak lu mu ba pare génn reeru Cheikh Ba waa kër Cheikh ña si joxe la joxe ko yaa ngi dégg guddi googu ñun amuñ lu gën a rëy loolu tijaan yi amuñ lu gudd gën a rëy loolu waaye nag ñun wuti nañ ci mboolem tijaan yi wuti nañ ci mboolem tijaan yi tey boo demee ma dina bàyyi dañ koy wax ci ci yoonu sant yàlla rek dañ koy wax ci yoonu sant yàlla rek boo demee kër Medina Baye bu mooyee rawda bële nga xam ne fa la Baye nekk benn rawdu ngay fekk ci dëkk ba bi ci bi kilifa yaa ngi dund benn zaawee ngay fekk ci dëkk bu mooy cumaa ji mooy zaawee ceeb na sant dégg nga tey jii nii bu mooyee guddi gàmm googu amul benn tante bu gën a rëy tante kat mi bi ci Medina Baye loolu sërif yaa ngi koy bégee ca ba ca Fass ba ca ay numaat ah? waay waay waay waay suñ guddi gii nañ ci jaayante waay waay waay suñ guddi gii nañ ci jaayante waay waay suñ guddi gii nañ ci jaayante mu mel ni nag machad bi ñu am mooy ne képp ku ci jaayante siru Thierno Assane Deme du dañ di dox ci yow ba ba ngay dajeek moom ba ngay dajeeg jëmm-jëmm loolu nag ah ay kàllaam la yoo xam ne suñu sëñ bi moo ñu jox ndigal ne nañ wax waaye lii nga xam ne nag man maa ko génne di ko wax kooku na la yontu bi sallallahu alayhi moo wax ne diine du dara lu dul laayewante bi rek man nag li ma xam ak li ma yëg moom lay wax samay mbokk. Mhm. gannaaw bu ma santaatee yàlla nag ci bokk bi nga xam ne ci seen biir laa bokk. waaw. na su ma leen dàndoon sax du ma yëg-yëg googu waaye bi ma toogee ci seen biir. mbaas ngeen bi ba nga xam ne gisatuma maanaam suñu xaru xuruuf yi nga xam ne moo ñu composé man gisatuma fu ñu tàqale ko loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax di wax ne ñun ñëpp nañ ko fuglu nañ ko waajal nañ ko góor góor nañ ci góorgóorlu man nag li ma foogee ne yàlla mi nga xam ne mooy programme kenn waxtaanut ak kenn. nga xam ne moo programme bi sorti bi njëkk def fii lañ ko def man ci noonu laa gëmee am yaqiin ne am yaqiin ne noonu ngeen di jiitoo noonu ngeen jiitoo tey noonu ngeen di jiitoo ba faw man noonu laa loolu laa gëm moo tax ma gëm ne daal xam naa ne incha allah ah, lii moom yaakaar naa ne lu pare la ba pare alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag loolu nag ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi lu ci dëng rek nga xam ne nag waaju manque ji ci moom la waaye kana ak i tamit xool boo xam ne dëgg dëgg bu sañoon rek yëf yi dafay gën a mat lépp lu ci mat nag ñu xam ne suñ sëriñ si rek la ci ñoom la loolu moo doon kaddu yi ñu ngi jégalu di la wax ne sëriñ bi ah kaddu gaa ngi noonu